ah Papis yow am nga tuuti xam-xam si basket wala. li ma ci xam bëriwul. bëriwul <laughs> doo koy seet wax dëgg yàlla li ma ci xam bëriwul. man de en fait de naturel bu ma joué bu ma paree football pare naa. Ah. en fait bu ma paree football bu ma joué si terrain génn ci pare naa ci. ay bu may seetaan télé peut ma seetaan ay série wala ay documentaire mhm. xam nga man comme àll balaa jóge <laughs> seetaan ay gaynde di dàkk ay segg affaire yooyu <laughs> yooyu laa gën a mun a seetaan c'est rare nga fekk ma ma toog ci kanam télé seetaan football c'est rare parce qu'en fait je passe tout mon temps à être sur le terrain mhm. le peu de temps que j'ai je préfère me concentrer sur autre chose seetaan les documentaires des trucs comme ça. Mhm. peut-être des séries mais sincèrement bi moom wax dëgg yàlla moom. Mhm. xaw ma ci lu bëri quoi. xaw ma ci lu bëri waaw xaw ma ci lu bëri. donc mu nekkoon ville de Dakar mi doon jàkkaarloog Juk. Juk donc ñu ko dégg ak ville de Dakar. Euh, ñaari équipe yu mag la ñoom ñoo doon jàkkaarloo foofu samedi donc c'était les dames. les femmes félicitations à eux. Mhm. <laughs> dina doon li gën ci ñoom. amiin incha allah amiin. Maman Djibril troisième fois sacré champion. pour les dames. pour les dames yi AS Ville de euh, fekkoon na boobu dig mi ngi nekkoon ci 15 yoo xamante ne jël na ko en 20 euh, éditions vraiment mu nekk équipe boo xamante ne moo tegoon tàng championnat bi jigéen ñi ba léegi sax mais hier lu ñu gis moo di Ville de dañoo ñëw ak ci beneen euh, façon ñoo amoon volonté ñoom it ñëw jël jël lii di final coupe du maire bu Dakar bi ñu leen félicité ñoom waa Ville de Dakar di encouragé aussi dig bi nga xamante ne ñoom démérité wuñu ndax ñoom bon kenn dootul euh, naataable ñoom euh, xarañte bu am ci championnat bu Sénégal quoi mhm. moo xam ba ci coupe yi lépp la faral di jël moo xam wàllum góor ba ci jigéen ñi mais démb lu ñu gis moom mooy vraiment euh, ASC Ville de Dakar bon mhm. équipe la bu dëgër boo xamante ne comme fii comme garçon ñi ngi ñëw quoi vraiment elles ah, mhm. surtout que Diouk nga xam ne 16 fois sacré champion la woon donc Ville de Dakar ñëw jël ko ci kawam mais présence maire bi mi ngi fa woon ak waaw dëgg la euh, xam nga loolu c'est c'est c'est c'est bon c'est normal euh, ni ma koy waxee ci football bi euh, une finale kiñ kiñ ko tuddee dafa war a ñëw toog dégg nga damay def allusion ak la coupe du Sénégal bi nga xam ne Ablaye Wade Macky Sall ba léegi mën ñu ko présider. Mm-hmm. dégg nga et ça c'est une bonne chose. Mm-hmm. mais pour wax ne rek que équipe ville de Dakar dégg nga dafa nekk ci benn maanaam suprématie wu. dug bi. Mhm. dug dafa dafa dominer le basket. dégg nga euh, comme may wax sama benn euh, confrère moom moom buy wax euh, kii jigéen kii basket yi day naa la basket. <laughs> waaw la basket dégg nga donc nag ce qui veut dire léegi ville de Dakar ñëw na mais mooy li may wax rek sport ce sont les moyens boo gisee résultat yii Yatma Yatma qui est le président de la ville de Dakar Euh, ñoom dañoo def ay moyens sport moyen la boo deful moyen doo dem fenn voilà les résultats mu ngi ñëw su sont les deux équipes yoo xam ne ñoom dañuy jël ay moyen def ko ci basket bi ñoom ñooy gagné. Mhm. c'est ça. Mamadou Dieye les dames de la ville de Dakar se sont bien battues mën nañu wax c'est l'émergence des petites équipes parce que boo xoolee comme lu ko Djibi Niang waxee dig moo nekkoon ci donc euh, ci donc gas gi coupe bi moom seen seen moomeel la woon. parce que bu ñu ñëwoon prix étudiants yi dañuy déplacé wu 500 dañuy joxe foofu. nga am cap am 17 dugg ci oto yi dem supporter ji. dafa am benn émergence boo xamante am na ci bu baax parce que bu ñu fàtte ne Tafa Gueye moom moo fa nekkoon. te ba fa nekkee tamit am na benn évolution boo xamante def na ko ci côté góor ñi am na tamit benn influence boo xamante def na ko ci côté jigéen ñi loolu moom moo tax euh, ba ñuy joué ñëpp xamoon nañ ne AS Ville de Dakar donte Duc moom moo ëppale ay trophée mais AS Ville de Dakar ñëpp moom lañ joxoon euh, favorite bi noonu la jaare kon dañuy wax gàcce ngaalaama sunu basket di wax ne yéen équipe yi ñu ngi émergé wu te loolu lu baax la mhm. donc toog si donkaas gi doog fa toog fa rek baaxul il faut yenn équipe ñëw pour concurrence bi gën a mën a metti quoi mhm. <laughs> en tout cas ça fait plaisir di gis euh, yenn équipe yoo xam ne ñu ngi nafe mhm. donc ñu ngi def tout pour que di remporter victoire ñoom mu nekk seen troisième victoire sacré troisième victoire di leen di euh, jaajëfalaat bu baax rek euh, di leen laaj pour que lancé bi ñu nekk ñu bañ koo quitter mais c'est vrai parce xam nga fu mu nekk nii Euh, am na coupe d'Afrique des clubs euh, góor yi gis ngeen ak baal bi. Mhm. Euh, jigéen ñi ñu ngi koy waaj a def donc nag loolu day day day stimuler day tax équipe yi maanaam gën a yëg waaye bu dee sur le plan local. Mhm. Duc jël na lépp fii. Duc jël na lépp fii sur le ah. plan local. waaye nag léegi nag équipe yi nga xam ne nag ñoo nekk suuf y a problème de moyen dama koy waxaat y a pas de moyen le sport sénégalais. mo problème de moyen la moo tax ñoom ñuy euh, am problème boobu. surtout basket bi ko ci yenn équipe yi da ngay gis ni ñoom moyen de transport yi ñuy jël sax pour ñëw donc des fois ça laisse mais non c' que c' est que am na yoo xam ne bu ñu la ko fii sax dégg nga non day day day day day day décourager sax euh, kii joueur c' est pas facile. waaw parce que boo laajoon léegi Papis Demba Cissé. nga xool moom nu muy vivre euh, dégg nga le haut niveau le haut niveau a un prix. Mm-hmm. haut niveau dafa am prix. waaw surtout Papis yow mi di compétiteur professionnel. Mhm. donc yenn condition yi bu ñu la ko tegee dafa yokk sa motivation. waaw bien sûr bien sûr boo nekkee ci yenn yenn conditions ci yenn confort ça te permet de de réfléchir même plus rapidement dans le ci milieu bi nga nekk en fait le football ça comme il a si bien dit ça demande des moyens il faut investir là-dessus pour pouvoir sortir des résultats football tant que investir oo mënoo génne résultat parce que. footballeur buy buy buy nekk ci terrain di xalaat nan la war a fajee soxlaam après kooku parce que le football c'est des secondes action ci ay secondes du ay minutes. re ay lay am. du gis sax la plupart damay neen nit ñi dugal bi du ay minutes ay secondes la parce que ay détails yu ndaw la donc yow sax xel bu toogul munoo réagir ci ay secondes foog nga toog xalaat xalaat di waajal te joueur buy waajal munoo egg fi nga jëm. Mm. parce que dañ la fay fekk donc euh, ça demande énormément de moyens et je pense que comme ni mu ko waxee footballu footballu Sénégal même footballu Afrique mm. man je pense que ñun nous au Sénégal on est un peu en retard par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté on est vraiment en retard mm. je le dis souvent avec euh, mes amis qui sont aussi dans le milieu du football je lui dis écoute vous dites que le football sénégalais la ligue c'est professionnel mais pour moi il n'y est pas on n'est pas encore arrivé là On est toujours dans la même dynamique. On, est, on fait le, le football, le football sénégalais, pour moi, c'est un football, c'est locaux. Est-ce est que pas vous avez eu à faire ce genre de revendications pour que ça ait un petit peu de changement Oui, revendication, c'est des trucs. Il y a des femmes qui ont Donc, nous, s'ils ont un planning, planning, bon, moi, je suis dehors, moi, planning, c'est là la Bon, donc, nous, ma ci ñoom ci loo xamante ne xaw ma planning bi nan la tegu mais li ma mun a wax man ci sama jëmm bopp li ma xalaat man le football sénégalais c'est pas professionnel. c'est pas professionnel parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de joueurs qui sont qui sont là au Sénégal qui jouent dans la ligue euh, ici au Sénégal. Mais si je le regarde, on me dit il joue le championnat, le championnat c'est professionnel. J'ai dit mais attendez, c'est pas professionnel ça. je sais que c'est on est au Sénégal mais si on reste toujours on dit ici c'est Sénégal bon c'est non non non on va pas évoluer il faut mettre les moyens essayer de pousser ces jeunes là et après les demander des résultats mm-hmm. donc tu ne peux pas demander à quelqu'un des résultats alors que derrière il y a des problèmes mm-hmm. donc ça va être compliqué et ce qui est malheureux mooy wax nañ ko waxaat ko mais domaine yëpp la amee problème domaine yëpp même problème bi lañ lay wax problème de moyens donc yenn conditions yi. xam naa ne euh, peut-être ñoom jibi euh, ak ñoom kii dinañ ci ñëw. Mhm. man defe naa ne man damaa wax wax ba sonn. man damaa wax ba euh, amatuma sax lu may wax déjà mu ngi koy confirmer li may yàgg di wax mooy que nu on est en retard. dégg nga am na benn écart bu rëy ak le haut niveau. le professionnalisme. waaw dañ koy wax rek mais c'est que de dinañ ci ñëw ak championnat bi. bu si kanamee ak ak kii di Djibi Niang